mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi ci biir ak ci ñu ngi nuyu kenn ku nekk nuyu ba gën a rafet di jottali nuyo alxalifa cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahim Niass ci gàmmu gi nga xam ne ñi ngi ko waajal jàpp ne suba mooy benn fan ci weeru gàmmu mooy ne alxames le vingt neuf moom mooy nekk guddi gàmmu fii ñu ngi sant yàlla bu baax mi nga xam ne moo ñu may yonent bi sallallahu alayhi wa muy xéewal comme nim ñu ko waxee ci alquran laqad manna allahu ala almuminina id baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa in kaanu min qabli la fi dalalin mubin yàlla moo xewee jullit ñi ba mu yónnee ci ñoom yonentu boo xam ne ci ñoom la tukkee def ko muy nit waaye nit koo xam ne dafay jël ci yàlla tabaraka wa taala ay digalam ak ay dénkaaneem xamal ñu ne yonentu boobu sallallahu alayhi moom lañ war a roy laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma al wa dakara allaha kasira am ngeen roykaay bu rafet ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi yàlla gëm alaxira di tudd yàlla lu bëri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu nekkee di xéewal ci umma bi xéewal ak juddoom amul benn xéewal goo xam ne ni moo ko gën a màgg xewal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul benn xéewal boo xam ne moo ko gën a màgg waaye bés bi nga xam ne ci la xéewal googu feeñ bés boobu xam ne feet la soxlawu tegtal ndax leer gi nga xam ne noonu la leere Moussa alayhi salaam bu fekkee aw nitam yonent bi fekk na leen ñiy oor ñu la ñuy oor ñu ne ndax bés bi ci la yàlla dimbale woon Moussa ci aw noonam yonent bi ne leen sallallahu alayhi man maa leen gën a eey ci Moussa mu oor saxaaba yi oor ci loolu la borom xam-xam yi gisee ne bési xewal bu nekk mas naa nekk bési beesal topp yàlla ndax yonent bi sallallahu laaj nañ ko or bési altine mu ne ci bés boobu laa juddu ci bés boobu tim ci la yàlla wàccee ci man waxyu pour rek ñi xam ne bés bi mu feeñ bési feet la bés bu ñuy war a kontaanee la bési wu war a feeñal suñ jokkoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu wa xayru mimma yajmauna te xéewal yàlla dara ganu cee mag feeña ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa looloo tax nag Medina naka jekk Cheikh Ibrahima ba tey bu rabiul awal teroo mu nekk feet boo xam ne ca teru tere lañ koy commencé ndax tey jii nga xam ne jàpp nañ ne mooy jeexal weeru safar Medina commencé na di feetu ndax tey ji alxalifa Cheikh Mouhamadul Mahi lalaat na tafsiri alquran pour xamale na rek ñun juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niñ ko déggee mooy pour jokkoo xaat ak alquran tey jii imaam Cheikh Tidiane commencé na jàng dalaa'il nubuwa pour xamale ne nekka ni Madina di gàmmoo mooy dekkal sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wa ci kanam tuuti da nga gis Cheikh Mouhamadul Amin muy jàng médailles yi nga xam ne dañ ko taggee woon yonent bi te tagg nañ ko ci kanamam mu nangu ko ñu xamal ñu ne loolu tim lu ñu war a def la kon ñi ngi pare xol yi pour gàttandu weeri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pare xol yi pour dekkal dundu alquran ci ñun pare xol yi pour dekkal dundu sunnatu muhammadin ci ñun waaye pare xol yi pour xeexaat mbëggeeli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne xam nañ ne lislaam du wér mukk lu may mbëggeel googu moo jiitu laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min nafsihi allati bayna jambay li mu wax Seydina Omar ba Seydina Omar yi ba ko yontu waxee kenn du gëm lu may maa ko gënal bakkanam bi ba Seydina Omar nangoo ne ko léegi yaa ma gënal sax sama bakkan ci la ko yontu bi sallallahu alayhi wa sallam door a wax ne ko al aana yaa Omar kon gàmmu mu'tamar arbabul mahabba la ko Cheikh Ibrahim doon tuddee maanaam congrès bi nga xam ne ñooñ mbëggeel ñoo ko moom ndax julli yi julli def seeni farata ñoom ñëpp baax nañ waaye ñuñ bëggeel ñoo toog ne ñun dana am luñ coobare oo muy naafila xiw boo xam ne nii diine mënta am te loolu amut muy dekkal euh, suqali so euh, wala suuxataat mbëggeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xol yi suuxat mbokkoo ak dimbalante ak àndoo fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy yonentëb yërmande ñu dund ci suñ biir fàttaliku bëggante dimbalante dund loolu ci suñ biir fàttaliku leexe la ñam gane gan dund loolu ci suñ biir ndax yonent bi sallallahu alayhi laaj nañ ko ayul islaam xayrun xaala itaamu taami wa ifchaau salaami ala arafta wa ala man taarif dundale ñam ak siiwal jàmm nuyoo ci koo xam ak koo xamut benn boroom xam-xami lislaam dafa wax ne eh, adresse lislaam adresse lislaam assalaam wal ixlaas sax mu ne moom mooy adressé nit ku jub gàmmu loolu yëpp pour préparer loolu yëpp la tey jii nag ñu ngi koy préparer ci jamono joo xam ne wuute na ak dëgg-dëgg jamono yi nga xam ne ci lañ ko daan def muy gàmm gi nga xam ne dafa ñëw fekk Covid mu ngi am Covid bii nga xam ne nekkoon naag ñun ci jamono ji nga xam ne ba laajee tëj jumaa yi ñàkk julli ajuma sax defoon nañ loolu ba léegi am na ñoo xam ne euh, ñi ngi dajee am na ñu du dajee ñun nag ñi gis ne war nañoo mën a dajee gannaaw boo xamee ne jël nañ matukaay yi nga xam ne nii moom la euh, sëriñ bi di dénkaane di ko sox ci li nga xam ne ni autorités yi docteurs yi euh, borom xam-xam yi loolu la ñuy dénkaane mooy gis nañ ne Covid bi demut fenn waaye nag euh, dund bi taxawut nit ñaa ngi dund seen dund kon naka la ñuy euh, ba pare moytandiku lépp loo xam ne nii mun naa lor ndax euh, wér gi xéewal la ñi fexe ba gàmmu sàmmanteeg wér gi moo tax képp koo xam ne yaa ngi ñëw di jublu si médina ngir ñëw gàmmu si ngir ñëw ziyaare si ngir ñëw jokkoog sa pays sëriñ li nga xam ne moom lay njëkk a dénkaane nga xam ne sëriñ bi daf ci insister waxtu wu nekk mooy nit ñi nañ sàmmanteeg euh, discipline euh, mbas mi am na lum laaj am na discipline yi nga xam ne moom la laaj loo xam ne jamono laaju ko woon nit ñi sàmmanteeg euh, yi sàmmanteeg distance yi sàmmanteeg gel yi rawatina ci barab yi nga xam ne nii barab yi buuxante la doon nekk ñi fexe ku ci nekk rek jàppal ne yow yaay ki nga xam ne lorante boobu euh, bu am loolu moom mooy dénkaane bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla euh, nangul ñu euh, gàmmu gi ñi dugg ci jàmm génn ci jàmm xam nañ ne gàmmu dëgg-dëgg ci jottalikukaay la boo xam ne gëm nañ ne war nañ ko mën a jottalikoo pour ñaan yàlla tabaraka wa taala ci jokkoo bi nga xam ne ñi ngi koy jokkoog xadaratul mustafawiya péeb yonentu bi salallahu alayhi wa ci barke yonentu boobu ci barke dundal bésam yooyu ci barke dundal ngir yàlla ci barke ziyaare ngir yàlla yooyu yëpp mu nekk ay jëf yu baax te yàlla tabaraka wa taala wax ne inna rahmatallahi qaribum min al muhsinina yërmande yàlla lu jege la defkat yi lu baax lu baax yi te loolu yooyu yëpp yu baax lañ ñi ngi taataan yërmande yàlla ci yu baax yooyu yëpp ci dëkk bi waaye di taataan yërmande yàlla ci Sénégal di taataan yërmande yàlla mu matal suñuy autorité di taataan yërmande yàlla di ñaanal suñuy njiiti réew président Macky Sall yàlla tàggat ko teg ko ci yoon wi nga xam ne moom mooy li Sénégalais yi doon gént ci moom muy Sénégal goo xam ne bu am jàmm bo am wér la bu am sécurité la ñi ngi taataan yërmande yàlla pour mu jëm ci mbooleem monde islamique bi ci bési bés yi nga xam ne bési ñaan la bési jottaliku la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit lii nga naayam moom mooy ñaan te ku nekk xam na ne mbas mi lu tëla àddina yëpp te na scientifique yi ku nekk yaa ngi jéem li nga man liñ man mu nekk ci suñ loxo yi nañ góorgóorlu ba ku nekk li nga ci war a def nga def ko ci liñ manut mooy ñu tàllal loxo yi ci yàlla toroxlul ko ci buntab yonent bi nga xam ne moom mooy yërmande yàlla matalal ñu yërmande ci ñun ñëpp ci suñuy dëkk ci suñu réew ci mboolem Afrique ci mbooleem alamul islami ci mbooleem monde bi sax ñi ngi taataan yërmande yàlla ci ñi nga xam ne ñu ngi ñëw si ci gàmmu gi ñi ñëw ci jàmm dellu ci jàmm dellu ak yëkkatiku waaye bàyyi fi jàmm ju mat sëkk waaye képp koo xam ne daal yaa ngi ñëw rawatina képp koo xam ne bëgg ngaa dugg ci jumaa ji wala nga bëgg a dugg ci dareex bi ñi ngi ñaan ñooñu ñëpp ku ci nekk na nga tënku ci tënk yi nga xam ne nii moom lañ jël euh, euh, def masque yi bu fekkee ne wér na leen a mënuloo loolu nga dem foo mën a beru yow kenn nga taxaw foofu yow kenn nga xam ne doo lor kenn kenn du la lor ndax lislaam laa darara wala diraara la ñi ñaan yàlla mu xool jëm ci ñun ñëpp bëti yërmaande ak bëti ngërmaande loolu moo doon euh, message bi nga xam ne moom la alxalifa waxoon ñu jàllale ko euh, mu ngi ñaan di ñaanal umma bi yëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu